jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay tey yaakaar naa ñu ngi fii Kër Massar benn face to face moo fi am bu war a dox si diggante Mama Lamine yaakaar naa ne bu Lamsar Mama Lamine bi ngeen xam si biir làmb mbokkam ndeyam bàyyi ji li tarkindaa bi moo war a fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Garga 2 ci biir oto bi nag yaakaar naa ne maam mamaa ngi fi borom Gambi waaye yaakaar naa ne ca kaw la war a waxee nag waaye nag dama fee sama xarit bi bàyyi ji baax daat yaakaar naa ne nee naa la géwél boo xamee cëram rek ab sëriñ la ci cim réew alaaji Baxdaat maa ngi lay siyaar moo rante delloo siyaar sama xarit bi si loo ne san sëriñ Tuubaa baax baax a baax a baax waa jàmm gën ak waa caaro waa jàmm gën ñëpp a ngi fa réew mu neex ma jàmm gën hmm. waaw ñëpp a ngi fa nuyu nañ leen baax a baax macha allah tey nan ngeen ñëwee andi sa doom nday assisté war a jàkkaarloo Garga 2 ci seen deuxième face to face ginnaaw bi combat bi taxawee waaw dañuy ñëw rek remplir suñu contrat ñëwuñ leen lu dul ñëw rek xam nga daf li ñu fi indi mooy ñëw remplir suñu contrat damaan ñibbi si jàmm salaam xaar suñu bis ñëw yàlla may ñu ndam. Mhm. waaw. macha allah yaakaar naa ne combat bi bi ñu ko jàppee léegi yàgg na. yaakaar naa ne bi bi ko promoteur bi tëggaateeg léegi sax def na ay mois te avant loolu noonu am na beneen promoteur bu ci nekkoon wàccaay bi nan lay demee parce que mbër mi nekku fi woon. d'accord moo daanta hmm. man mooy li ma la wax. damaa gunge si rek. xam nga dama gunge rek. mbër mi moo ngi waaj nekku fi woon mu ngi fi woon man galañi laa gérer. Mm. li mu war a fecc lu neex lépp. incha allah maa ngi ci. Mm. waaw mais damaa gunge si nii rek. ci innovation yi. Mm-hmm. ci fecci meeg ci daaneel yi lan lañ ci mën a xaar jour bi parce que yaakaar naa ne fête la 22 mai. waaw xam nga nag Modou Anta ñun moom ku ñu xam. Mm. xam ñu si neexal bis. Mm-hmm. waaw tous les tarkinda ñoom ku leen xam-xam leen si neexal bis boo leen fayee loo leen mën fay. Hmm. suñ ñëwee dinañ la fayaat yow it ba wis la. Hmm. waaw amateur du leen mere promoteur du mere. wax jee bari rek mais fu ñu bëree ñëppay bëgg ndax di nga gis fecc di nga gis bëre di nga gis ambiance lamb la. Hmm. daan ak daan suñ borom moo ko yor mais saa bu ñuy bëree dinañ def ñoom li leen war. ba yala yàlla di ñëw waaw. ñaata sabar nga fas yéenee fort. incha allah rek. mooy li ma la wax ñun à chaque fois li ñu promoteur bi sant dañuy def lu ko double. Mm-hmm. ñoo ngi wàcc ak tous les côtés. Mm-hmm. cool yeeg mbëng-mbëng yeeg ndeer yeeg tunguna yeeg cung yeeg yëpp a ngi si ak tamay incha allah. Mm-hmm. waaw macha allah am na solo yaakaar naa ne damay arrière jël Baye faal bi. taaliba Cheikh Massamba Fall bi borom ngàcc. waaw loolu am seeraas maa ngi maa ma. ñu ngi siyaar moo Anta. si loo ne. ñu ngi sant bu baax a baax mën naa ne ku sori ci yow sa doom sa seex moo am combat wàccaay bi nekk fi woon de fan ngeen làqatu woon. waaw sa waay moom mi ngi woon jàmmi xam li ko war. Mm-hmm. nekk si làmb ji. Mm-hmm. di ñaan suñu borom yàlla ñu yàlla suturaal defal ñu ndam bu yaatoo yaatu. Mm-hmm. waaw loolu kese la. macha allah yaakaar naa ne moom essant yi nii nag mi ngi ci forme de damaa xamul nag lu ëpp ci li ngeen doon liggéey lan la. maama moom xaw ma si lan la ñuy tiit si moom mais du si forme quoi. Mm. yee xanaa suñu borom bi ñëw mais mm. su dee entraînement da koy jox cër bi moom mm-hmm. su dee musique da koy jox cër bi moom su dee làmb ji da koy jox cër bi moom mm-hmm. waaw su dee bëri mu jox ko cër bi moom daan ñi ngi bi dayoo combat bi dayoo bi mu am xam ngeen ko waaw xam nañ ko moo tax mu jaral ñu ko mm-hmm. waaw soo gisee dafa sacrifice lu bëri ndax làmb ji waaw bi làmb ji taxawee ba léegi chaque jour tey la gën a métti. Mm-hmm. te incha dañoo gëm dañ ci war a am ndam te dañ ci am ndam incha allah. Mm-hmm. bi dee na ma ne ma invité d'honneur bi mooy Papa Sow ak Siteu kon lan lan man a xaar ci bis bi ci fair play ak ci innovation. waaw làmb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Eh, su làmb ji jeexee jeex na. Mm. Eh, sport la rek ñuy nekk sportif. Mm. Eh, du ñaan suñu borom bi yàlla ñu yàlla suturaal defal ñun dam ci kaw Garga 2 ñun daal loolu lañ am lu ñuy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. am ngeen ci yàqin bu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ci xeex wala ci bëre. si lépp. lu mu bëgg rek ñu fekk si ko si. am na solo Ousseyn na ñëw yaakaar naa ne mbër day soxor. Abou njaase na xam lépp jàmm. borom chorégraphie maa ngi siyaar. kon lépp jàmm ñu sant bu baax a baax naka waaw ñu ngi sant bu baax a baax. waa jàmm gën. ñëpp a ngi si jàmm. tey noo andee sa doom day. waaw dañu ñëw gunge ko rek xam nga. Hmm. ñu ñëw ràmbali contrat am si teel. ma hmm. yar ak teel ñu hmm. bi xam nga di xaar bis ba borom bi defal ñu ndam si kattanu yàlla. macha allah demal yaakaar naa ne ma ngay dem acca koo koy Abou Ndiassé merci Waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. soo doom yaa soo mbokk yaa ngi nii de jarkin daa ngi taw bi bu ngeen bu ngeen arrêté taxaw leen dëggal seen bopp moom bëgg leen rek ngeen taxaw dëggal seen bopp namb naa la Alaaji Ba naka nam naa ko man maa la njëkk ba. may ma xaaral ñu ngi liggéey su ma waxee day génn kaw. salaamaaleykum. waaw.